Another asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu séentoo weeru Shahbaan wi Sëriñ Bachiru Abdul Xuddus mu yore kàddu njabootu borom Daarul Moxti teew na ci kanam waaye juróom di Sëriñ Bachiru Anta Ñang mi toog toogaayu borom Daarul Moxti di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci màggaluk Daarul Moxti kon ñun ñëpp ñu ànd teewlu kàddu yi la Sëriñ Bachiru moom Cheikh Abdul Xuddus yëkkati ñu teewlu ko asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi ca timis ba léegi noo woon fii sa wet di saytu weer wi ànd koog ñi nga xam ne ñoom lañ ko baaxoo àndal muy euh, commission bi nga xam ne moom la sëriñ Saalih taxawaloon ku ñi nekk Touba ak uh, waa Tiwaawoon niñ ko baaxoo ànd ak ñoom di séentu weer wu nekk ci fukki weer yeeg ñaar yëpp nag defee nañ ko noonu ci sa wet waaye li nga xam ne moom lañ ci jëlee mooy dañoo gis ne rajab day mat weer su ko defee kon benn panu Shahban day nekk alterné alterné lay doon mu nekk uh, bu dee ci weeru tubaab bi fukki fan ak juróom boo ko ca xoolee itam ci weeru tubaab kon golub daa gi ministre Shahban ji day war a dëppoo ñaar fukk ak juróom bi uh, muy le 29 mars 2021 loolu nag boo gisee ñu defee ko nii bokk na ci sax saxbaan ji nga xam ne moom la yàlla def muy sax saxbaan ji nga njëkk a fekk ci ginnaaw bi nga nekkee di borom daaru mawti ñuy ñaan yàlla sunu borom mu yàgg ko teew ci sa wet nga yàgg koo jiite te Chahbaan ji nga xam ne la Cheikh Mamadou Fadal waxoon ca talaata joojee ne boobu a xew sëriñ Fadalu ne sunu borom day la mu mayoon sëriñ Touba ca talaata joojee ca Gabon ba tax mu ne wahabalil wahab fi thulaasa maa yuxjil asrata wa thalaasa sëriñ Fadalu waxoon ne talaata joojee sunu borom mayoon loole sëriñ Touba ca Gabon day talaata yi tey ji la ko daq loolu nag ñu sukkandiku ca nuy dem wax ne Chahbaan ji nga xam moom la sëriñ Touba waxoon borom Daaru ne ko man day dama la doon ñaanal loo xam ne ci sunu borom Chahbaan daaw la laa ko doon ñaan ba mu jàgg muy sikk sàkk defe ne sax dañ koo nanguwut ba sax daani ren lañ koy door a nangu loolee nag bañ ma ma caa ma Sëriñ Tuubaa mooy wax de dañ maa ma ñaan googee mi ngi door a nangu xamal ma itam ma nag soo ñëwuloon siyaare ji ci at mi day mbir mu moo xam ne dana naqari képp ku la soog waaye daal cee teg ne wal xiyaasu billaahi taala teg ca itam ne lii day ci muxjisaati rasul la waaye laaminal karamaat loolee nag kon sax baan jooje nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa seqoonu borom Daaru Muxti yal na la ko yàlla yàlla defal ci Jean Van ji noolee loolee mu ko wax ne ko képp ku la sopp kon nu itam yàlla nu yàlla dugal ci biir loolee te ñaan yàlla ñu fekk ko at yu bare bare kon nag eh, ni ko sëriñ bi waxe woon rek nun bokk yi na na a doxale ni mu bëgg ñu doxalee ko ni kon nag la cee des rek moom mooy ñu xam ne junj naa ko keroog yi ni ñu màggale woon màggalug Daarul Muxti daaw dina am tuuti lu cee soppiku ndax daaw dafa am li ñuy tudde état d'urgence boo amoon boo xam ne mbooleem ñi xam ne seeni kër dafa nekk Daaru Mooti te ñu nekk ci bitti ñu ci bare bari mënuñu woon a jóge Touba sax ñëw Daaru Mooti waxuma la ay Ndakaaru wala Ndar wala feneen loolee nag kon ñoom ñooñu nga xam ne nag seeni kër dafa nekk Daaru Mooti ñu war fekk seenu njaboot ñooñu moom kon woon yàlla dimbalee na nu ren ba nga xam ne ñooñu ñëpp dinañ mën a fekk si seenu njaboot ci bis boobu nga xam ne bu ñu sañoon bis bi bu ñëwee ñu ànd ak seenu njaboot teewee ko ci ci Darou Moukhty ñooñu moom taxul ñuy a fekk seenu moom mooy li sëriñ bi waxoon sëriñ Basiru ànd koog sëriñ Muntaxa te moo di ay mbooloo yu dajale ak i xumbeen yooyu moom mooy la cay génn la ca des nag moom mooy màggal ko ci xol ak sellal ko jàng alxuraanul karim sëriñ bi nag jàng alxuraan ji ni nga xam ne dañ ko baaxoo defee nga xam ne mooy daare ji nekk ci daaru mooti ak daari kamil ji nekk tuuba ci jumaa ji ak daari kamil ji nekk njaareem ak mbooleem barab bi borom daaru mooti yi ak mbooleem barab bi sëriñ tuuba yi barab bi borom daaru mooti yi buñ ci dugalee yaari daaru manaan yi rek ak daaru kosa borom daaru mooti jagleel ko borom daaru muxti ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy way dawlu yi kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy li sëriñ bi joxe ndigal noonu la bëgg ñu doxee ko noonu bu dee ci waa dëkk bi dama ci dellu si waat bu kenn ku ne ñëwee ci sa kër it jóge tax ko woon it boo ñëwee na nga def li nga xam ne mooy sàmmanteeg war may kaddug sëriñ bi te kat boo ko xoolee tey jii de am na lu xew ci réew mi loo xam ne war na noo jàngalaat nun ñi nga xam ne ñoo topp ci sëriñ bi tey déglu ndigal am na ay mbooloo yoo xam ne lañ nekkoon lu leen itteel la lool lu leen ñor la lool waaye bi sëriñ bi yëkkatee kàddoom wax ak ñoom dañoo jël lépp teg fa suuf loolu nag doy na jàng ci ñun ñi nga xam ne dañuy dañuy déglu kàddu sëriñ bi te war a topp ci ginnaawam lu mu wax ni jëf lu mu tere duñ kon yaakaar naa ne loolu lu war a xoolaat la suñ biir ñi nga xam ne ak lu mën a xew rek ci ginnaaw sëriñ bi la ñuy topp waaye ñooñu day li ñu def wane na lu rëy rëy ci ne ñoo war di laaj ndigal kon ñii ko sëriñ bi santaane rek nañ ko doxale noonu màggal ko ci xol màggal ko ci sell jàng alxuraan jàng xasida te bernde yi lu waxtu woo xamee ne noppi nga say bernde faaw da gis ñu ko jox daara alxuraan yaa ngi ñi ko soxla ñeneen a ngi fi yàqu kon nag nañ ko nañ ko doxale noonu li nga xam ne itam mooy li jëm ci wàllu xam-xam bi ak yeete gi ñi nga xam ne ñooy commission yi nga xam ne ñoo yore wàllu uh, culture bi ak communication bi dañ ko doxe ba mat sëkk ci wàll yëpp suñ ci war leeral dañ ko war a jotal dañ ko jotal kon daal sëriñ bi li ma waxoon léegi rek la ñuy feddale Sahbaan ji nga xam ne moo njëkk ci jotaay di borom Daaru Muxti yàlla na yàgg bari lool lool lool te yàgg ko ànd ak yow te Sahbaan ji dugg ci Sahbaan yi sëriñ Tuubaa jooju waxoon borom Daaru Muxti loolee sunu borom am na ko mën na ko yàlla na ko def te li nga xam ne itam mooy liggéey bi nga xam ne moom la sunu borom teg ci sa kaw ñaan yàlla mu dimbale nu ba nga xam ne foo gestoo rek ak loo yëkkati rek ñu mën cee ànd ak yow ci loola ban am ci sa ngërëm te buñ amee sa ngërëm rek am nañu ngërëmul ngërëmul sëriñ Tuuba yi daal mooy taxoon ne kon na ne xam nañ ne kon rajab day a ak juróom ci weeru mars bi nga xam ne mooy teelu weer ci 2021 bi li kon day daal dikkaat vingt-neuf ji moom lay doon vingt-neuf lay doon mooy doon bisu màggal kon nag màggal gi moom mi ngi noonu sëriñ bi fomm ko waaye da soppi doxaliin wi ànd ko ak sëriñ Muntaxa xam ne la sëriñ bi wax rek loolu mu wax léegi itam ci biir waxtaan na ko mooy lépp loo xam ne lii mooy yëfi borom Daaru Muxti dafay dëppoo ak yëfi sëriñ Touba doxaliinu borom Daaru Muxti dafay dëppoo ak doxaliinu li nga xam ne mooy li fi am ñaan yàlla sunu borom ñu fekk ko ak jàmm te kenn ku nekk la ca war nga doxal ko jàpp ne daal li sëriñ bi bëgg yow yaa koy doxal ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee ci anam yëpp te loolu moom mooy lépp nekk jëfi ixlaas rek ixlaas moom lu mu ànd rek moom mu baax ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.